non à Fass ak Zos combat bu neex la yalla def na conséquences conséquence avant combat bi après combat bi amna des conséquences aussi man de mon côté refet lou parce que je suis un ancien lutteur Tu là bok en dehors vice-président chargé de la lutte simple du CNG sport sport la duñu ay non. ndax da nga xalaat ne sa adversaire mooy sa richesse parce que lo am mo lako jox lu mu am ya ko ko jox kon dañu wara fonkante respectante man ñëw naa ci lamb daanu amoon naay gàllankoor mais tax ma yàq victoire nit dama wax ne yàlla loolu la dougal yàlla loolu la dougal amna donc combat bi avant combat bi promoteur bu dougal xaalisam am confiance yeen jox len ko comme tris mu sori tey mënoon na ak de des boobu mu ngi ak peut-être ñeneen marcher continuer def marché kon nak da ngeen respecter combat respecter ne jambour engagement ngay réel. dem nga ci CNG bo xamné yor diriger nga def contrat ak nga jox leen respecter combat mais wax yeb choses, pour mu am ci combat bi. lo jël alalu jambour ci contrat nek ci contrat bi pare certaines caaxaan la ko wax nga di ko def en tant que professionnel en tant que champion ngay bëri ay millions su ces une semaine war nga mun sécuriser sa bopp yàlla mooy sécuriser domi adama mais nit bi mokoy sabablo sabablu ba amna ne am na yeneen incidents yi du la mun a jot ndax mu dos une journée dans le combat yow en tant que professionnel en tant que suma xarit suma jarbat, jos comme ni mako bougué mu yéeg moto rafetlu ma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 booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari nay baree